Omar ñu lay jaajëfal ci sa laaj bu njëkk muy le bilan de ce maire muy Aliou muy un bilan ki est qui n'est présentable vu la situation que traverse cette commune depuis mu nekk fi ba tey li nga xam ni moom la askanu moom jëmale ko ci ak maireem donc lu bari da cee tagga témbe loolu nag bu njëkk askan wi naqarlu nañ ko naqarlu nañ ko ba fii ñu toll nii je pense que nit ñi ñoo ci amandoo benn wax wax biñ ciy amandoo mooy moom amuñu lenn lu luñ koy wax ndaxte dagaanul baatu askan wi amuñu lenn lu luñ koy wax ndaxte taxawul ni fal leen ma on elu sur les critères de son parti et loolu type d'élection bi ni mu demee woon la c'était au suffrage indirect dañuy fal conseil ñu tase ñoom ci seen parti ñu def seen i primaire moom la yàlla dogal ci seen scrutin boobu ñoom seen biir naka la demee moom mu doon ci maire mais je pense que bu doon moom ak jëmmi Thiessois yi duñ ko fal muy doon maire plus particulièrement les populations de la commune nord de la commune est kon duñ ko def maire mais critère partem ak na mu doonee suñ toogee di la nettali seen i primaire ay reetaan da lay jàpp c'était des primaires yoo xam ni ah c'est une c'est des primaires yoo xam ni mais ay nullards mais des aucune vergogne ay nit ñoo xam ni Thiessois yaakaaroon leen ci seen destinée ëllëg moom leen mën a taxaw le parti Rewmi dont je respecte beaucoup su dee primaire yëpp nii lay demee ci Sénégal booba parti am. tey jii primaire yooyu moo indi Aliou Sow mu tax mu doon maire mais ba muy dugg ci salle bi préparé wul boppam pour un programme préparé wul boppam psychologiquement tey moo tax Yatta Youmbe bii am ci commune ouest mu amaat dans les autres communes de Thiès mu amaat aussi. dans la commune ville bi Talla la jiite donc loolu lépp jafe-jafe askan wi la loo xam ni ku dee ak sa bàmmeel coono ak naqar gu ñu Idrissa Seck tegal la devant les Thiessois fonds propre non loolu mënuma ko nangu parce que là si sama présentation wax naa la ko nee naa la je suis le trésorier général du poste de santé de Randoulène ce que traversent les postes de santé poste de santé rek ci compétence ci neuf compétence transférées yi ñu jox mairie yi la donc jafe-jafe yi ñuy am foofu ci poste de santé bi rawatina bi mbënn mi tàmbalee ba tey les postes de santé ne reçoivent que le soutien de maire yi nga xamante ni chaque année lañ leen di votel budget dotel leen ko en médicament tant qu'il en soit am na ñuy am huit cent mille am na ñuy am un million cent am na ñuy am ainsi de suite loolu bu weesoo pour ñoom dimbali nan at mép poste de santé alors que les postes de santé on paie ces gens là à part ñi fi état indi ñuy nekk ñaar ñett le poste de santé prend en charge huit ou neuf autres yoo xam moom moo leen di fay sur les fonds yi nga xamante ni recettes yi muy liggéey muy ticket yi muy vaccination yi liñ ciy am muy leneen CMU liñ ciy am donc jafe-jafe buñ la nee amul am na tey poste de santé yooyu suñu kees yi vide nañ sonn nañ te boo demee fépp te gisuñu le soutien des maires mu ñëw taxaw sax bokkandook ñun loolu quant aux écoles nag yooyu mun ñu ko nangu parce que jafe-jafe yi am ci école yi commune bi ñu ngi fii taxawu les problèmes sont la commune ouest li fi nekk ci problème ku ñu ko wax munoo ko gëm ndaxte situation démographique bi ñu nekkee ci dëkk bi la yombul ñu gis ko on est dans une zone boo xam ni booy xool lépp ay tali la de belles ruelles mais de grandes difficultés sur les gens nit ñi lekk ñu xiif nañ sonn nañ te gisuñu le soutien de leur maire plus particulièrement la commune ouest donc ku xool ni mu bindoo ci ay tali. ay taaraay et tout ça loolu li mu fi fekk la mais qu'est-ce que le maire nous a apporté durant son bilan là durant les sept ans plus les deux ans yi ñu leen dollil mun ñu say wax lenn lu dul enrichissement propre man nañ ni maire bi ba mu ko doonul woon tey tedd na am na lu ne maire bu daan jox maire yi di jóge di waaxu ba Grand Thiès tey tu te retrouves avec tes propres véhicules tes propres maisons tes propres fonciers bi nga xamante ni Mouhamed Mbaye jarbaat Idriss Seck génn semaine passée attaqué ce maire là ni am na tant d'hectares à la zone industrielle ñoom ñoo ko defante seen biir man xaw ma ko woon ñoom ñoo ñu ko wax donc ñun fan lañ jëm te loolu lépp dañuy continuer di ko wax on va continuer à dénigrer ces maires la parce que maires yooyu ànd ak ñoom dans le cadre de mburu ak soow bi Macky Sall tàllal Idriss Seck son frère mu ànd si ak moom taxul ñu war a wax ni gongo je di dis et je le l'accord de Macky Sall et Idriss Seck sur la situation nationale dont Idriss Seck avait parlé au Sénégalais que ni li tax ma ñëw mooy pour ñu génnee Sénégal ci crise économique bi tey loolu lépp gis nañ ko wala gisaguñ ko man leeruma parce que je ne suis pas dans le système étatique au niveau central mais li ñu mën a gis mooy njariñu parteem ci àndin boobu ñu ngi koy dund ñu ngi koy am li ma mën a gis mooy warul mën a tax responsable APR yi ne ci gox bii nga xam ne dañoo yàgg dénigrer ces maires la avec leur catastrophe bilan warul tax ñu toog dañoo war a génn continuer di leen wane. parce que li Idrissa Seck ànd ak Macky Sall au niveau central ñoom la leer ñoom ñoo ko xam ce qui en bénéficie aussi ñoom ñoo ko xam bu dee Sénégal am na ci njariñ aussi lu ñuy présenté waat la mais fii Thiès li ñu mën a wax mooy njariñ loolu feeñul ci Thiessois gisuñu ko ci askan wi on doit continuer à les poursuivre à les attaquer et ñu delloo ñu suñu ay mairie ñu teg ko ci ay loxo yu légitime ñu àndandoo ñu mën a dem liggéey ngir suñu njariñu gox. waaw je vais être très bref face à cela parce que li waral loolu mooy l'intérêt de Thiès doit primer l'intérêt de parti ne doit pas être un monopole ou un facteur bloquant aux population dañ kaa war a bañ ñoom ñu bokkoon APR taxaw bu njëkk ni maire yi fi nekk doyuñu ñu on va les dénigrer. ànd ak mburu ak soow taxul ñu ni leen yéen a war a nekkaat suñu kanam on va continuer à dire non comme mësuñu woon a ànd parce que le système de gestion locale et le système de gestion centrale n'est pas pareil parce que xam nañ maire yi fi ne xam nañ seen démb xam nañ seen tey dañoo indi gàllankooru askan bi kon loolu noonu suñu demee ba gis ni ñun parti bi ñu gis bi ñu bokk muy APR ces gens ne respectent plus leur parole d'avant non man je vais me reculer que sama kàddu démb duma ko jaay nit sama kàddu démb ak sama kàddu tey ñooy méngoo ba fii ma taxaw nii bu ma fi yàlla jëloon sama kàddu démb la ma jëlee te moom lay waxaat nan leen pousse maire yi fi jóge nekk il est temps qu'on change ce système de gestion locale loolu moo tax ma ni Massamba Diop bokkuñu parti bokkuñu doctrine de parti mais on est des amis te lu defar dëkk bi moom moo ñu ñor commune am gis naa ni tu as le profil yaa ngi taxaw di wuy askan bi ci li ñu bëgg démb ku xool Massamba Diop ci biir ndox mais ana leur maire quand on est allé là-bas qu'est-ce que les populations gisuñu maire sañu fee teg tànkam mais loolu noonu bakkañ kañ fi nit ñi amee jafe-jafe duñ fa gis maire bi yéenay ñëw mais kon damay taxaw ni ko yow li nga taxaw di ko woo sa waa askan sa waa goox waa zone nord gëm naa principe boobu damay ñëwaat ci commune ouest ni Ndeye Tické sama yaay la sama xaritu bopp la c'est une dame boo xam ni elle n'est pas d'égale dans cette ville muy jigéenu Thiès ñëpp. Ndeye Tické amu fi tolluwaay amu fi jigéen ju mën góor la amu fi kenn kuñ koy delloon dendandool sur le plan intellectuel ci yar ci teggin ci njub ci bëgg dëkkam donc ñooñu dañ leen di côtoyer ndax dugul ma APR mais man nit sa jikko laa lay jàppee sa jikko laa lay nawee elle est ma mère elle est tout pour moi et je bien te bokk na ci nit ñi nga xam ni pour un Sénégal de demain leur notre destinée on doit suivre ses pas di ko remercier di ko félicité ci poste bii ñu ko jox son excellence madame l'ambassadrice du Sénégal au Brésil dañ ko ciy jaajëfal mais li ëppaat solo li ëppaat solo mooy tey y des gens de bonne foi yoo xam ni dañoo taxaw mën ñi ne ci parti yi mën ñi yor les titres mën ñi yor les postes ñu taxaw fi di jël leur bien personnel di ko wàcce ci askan wi ku mel ni suñu commune d'arrondissement commune ouest tey Habib Kane ce qu'on parle au maire le programme du maire c'est quoi c'est le social maire du yëfu jinne du xam-xam bu bari du lenn maire mooy lin lay jox nga koy dépenser sa juuti moo la koy jox say cantine ñoo koy fay mais ña la koy fay ci ñoom nga koy wàcce waa dimbali leen bu ñu bëggee faju faju bu ñu bëggee jàng seen école am courant am ndox bu ñu bëggee seen i mbedd nga taaral leen nga accompagner seen i jeunesse tey bu ñu ñàkkee loolu lépp ñu gis ay nit ñu taxaw porter le programme et l'engagement de ces maires-là, on croire def leen maire et Habib kan statut boobu la am dans cette commune nga xam ni taxawaayu maire lépp lu maire war a def mu ngi koy def ci askan bi mais yorul budget maire yorul programme maire. waaw ah, poste de santé bu PMI biñ ñu joxe manda dama dem taxaw bi ma ñëwee ma fekk fa ay nit ma taxaw ni leen dama bëgg a ñëw ñu développer poste de santé yi ñu ànd seeg suñuy mag randu leen yëpp. ñu ànd seeg ñoom Isma Thiam suma magu bopp ñoom As Faye ñëpp man leen dama bëgg a ñëw porter ñu développer poste de sante bi parce que fekk ñu si peinture boo xam c'est depuis l'antiquité salle maternité bi amul climatiseur bi ma ñëwee ma porter ce projet je suis allé au digne fils de Randoulène Nord mooy Habib Kane mooy As Biram mooy El mooy sa job de l'UNESCO ku ne ma dem soumettre la ko ñii di indi ay kilim ay ventilo ñu ànd seeg waa bureau bi ñoom Aïcha Aw bureau Manoumbe que je salue de passage et madame Samb l'ICP tey ñoo ñëpp ñoo taxaw pour ñu développer poste bi pour les populations parce que nous on est pour représenter les populations de Randoulène tey ñoo ñu ñoo taxaw di jàppale y avait aussi un ancien inspecteur des impôts et domaines en l'occurrence monsieur Djibissi poste de santé mi ginnaaw contribution la ne j'ai cherché une audience on me l'a facilité j'ai pris tout le bureau les quatre membres de ce bureau ñu dem ñu toog quand on est allé ma ne ko monsieur Djibi Sy poste de santé bi mu ngi sa ginnaaw bureau yow vous représentez une institution vous dans l'état vous êtes maire dans une commune xam nga lan mooy poste de santé tey nag bii jàppal ni fii war a fondé la ñu jox ko projet de peinture il a tout financé il nous a appuyé mais li may jar a sant yàlla mooy il m'a dit mu am ay seede y avait François Sall y avait Ousmane Beye Diop y les quatre membre du bureau du poste du comité de gestion du poste de santé mu ni ma Thiès jeune bu ne rencontré naa ko fii nit ku ne rencontré naa ko mais képp ku fi ñëw xam lan la may wax monsieur Djibi Sy ma oto monsieur Djibi Sy damaa bëgg kër man j'aspire à avoir une voiture j'aspire à avoir une maison mais ma population est ma priorité avant ma propre maison parce que sama kër yaay ak sama kër papa sama biir quartier daf maa dàqal ba pare donc ce que je veux mooy servir mon quartier avec la maison de ma famille leneen lu may ami ëllëg sama ñaq moo ma koy may ko redoubler defor à soutenir nos zones à soutenir no quartiers à sutenir nous-mêmes de notre propre volonté ngir suñu njëriñu bopp kon loolu lépp dama lay wan ni la man sama quartier avant tout ku may bëgg ci sama quartier nga may bëggee ku may bañ sama quartier nga may bañee parce que ku ne da nga war a xool li développé sa quartier dëkk bi jag mais bu dee nit ñi ñoo aspirer à ne pas diriger leur quartier su boobaa aussi ça va refléter à l'image de nos dirigeants locaux qu'ils soient médiocres qu'ils soient passables qu'ils soient des gens inattendus de la population ñoom ñoo ñuy jiite kon nan leen yi wan ni leen suñu xar kanamu koñ dina développer sans yéen ba pare ak pexe bu ñu ko mën a demee ëllëg bu ñu taxawee ni leen noo dinañ leen wax non man dinaa ni non ndax sama poste de santé quartier mairie ville ñooy nettoyer suufu mairie bi yëpp ci taatu poste de santé ba lañ koy juug may rayanteeg ñoom topp ma leen seen i programme man lu ñoñal sama koñ ak koñu jàmbur yi ñu dem ñoom laa yaakaar ëllëg doo am benn jeune taxaw ni leen du yéen te du ñu yéen te je n'ai aucun jeune à devant eux pour leur dire que ni disparaissez de nos je n'ai aucun jeune à et devant eux pour wax leen ni du yéen la askan wi doon xaar mais doy nag que ça suffit loolu nag sa va refléter aussi à l'image de Idriss Seck soo bëggee Thiessois ëllëg sa nekk ak ñoom mu rafet pour de bon dégager ces mairies là et renouveler ces mairies avec des jeunes compétents qui sont là engagés pour l'intérêt de leur ville sans aucune appartenance partisane politique ou mouvement quelque chose comme ça travailler dans la durabilité et dans l'intérêt pour le développement de notre chère ville. Wow, je suis délégué de mon ASC, j'ai fait mes trois mandats. Je remercie mon ASC à chaque renouvellement. Il me donne cette confiance de représenter mon ASC. Cette année-ci, on m'a donné une tâche lourde à la zone. Je suis le deuxième vice-président de la zone 1A du président Hussein Diawara, dont je salue tous les membres. Je suis aussi euh, le chargé à la communication, je suis le porte-parole de cette zone. en ce qui en ce qui concerne avec le retard de ces démarrages de ces activités populaires de navétane c'est dû aussi à la Covid mais je pense que ku waxul lii wax lee je pense que taxawaay bi nga xamante ni moom la ONCAV am depuis la première phase daaw nawetaan amul mu ñëw taxaw lancer distribution de gel et de masques et respect des mesures barrières au niveau national ñu lancé ko fii Jalooré laissez-les euh, choisir ces quatorze régions Thiès choisir un département muy Thiès choisir un quartier muy Jaloore mu nekkoon sama quartier loolu je crois que c'était une fidélité e fierté la woon tey aussi depuis qu'on a annoncé l'ouverture de nawetaan rumeur mu ngi doon daw ñu naan nawetaan ko xool léegi xam ni yaa marchand jour ñuy jënd pour accepter de leur acheter ils devaient se vacciner tey jii le taux de vaccination et à euh, s'est élevé aux intérêts du nawetan kon l'État doit beaucoup plus apporter à ce mouvement nawetaan parce que du benn politique buy taxaw fii ni man maa wax ba diw vacciné wu politiciens yi de mënoon nañoo wax distribuer nourriture gel ainsi de suite ainsi de suite mais mënuñu woon wax nit ñi ñu vacciné wu parce que askan wi joxuñu leen cër boobu. amul benn maire commune d' arrondissement bu taxaw fii woote journée de vaccination bu dul maire ville bi ñu gis fii te nit ñi romb ñoo vacciné wu amul benn maire bu convaincre les populations là au vaccin tey la nawetaan est en train de faire un grand travail par rapport à cela depuis que l'ONCAV a annoncé ce protocole là les ASC se sont converger vers les postes de santé avec le joueurs et encadrement pour pouvoir se vacciner, pour pouvoir avoir la facilité d'entrer dans les stades parce que c'était les conditions. kon condition boobu bu ñu taxawee ñu ni Sénégal jeunesse boo fi ëpp jeunesse Sénégal football la ñuy dund jeunesse Sénégal nawetaan la ñuy dundu tey bu ñu taxawee ñu ni ñu ngi topp loolu pour respecter li état gis ni mooy mën a doon njariñ ci askan bi pour ñu mën a moytu feebar bi kon nan accompagner loolu ne pas arrêter ce et tuer les gens sacrifier les gens de cette maladie mooy éliminer nawetaan tey nawetaan moo fi nekk créneau boo xam ni mu ngi tax nit ñi dem di vacciner wu pour l'intérêt commun kon luñ ciy mën a def gàngantal loolu les équipes ont dépassé leur argent des millions leneen luñ ci def on va avoir une diversion entre la jeunesse sénégalaise et l'État central te loolu ñaanuñu ko encore une fois monsieur le président de la République qui sont sur le terrain qui vous représentent ici que le gouverneur que le préfet, que le sous-préfet, réunissez vos forces et sachez que le nawetaan est un moyen à la jeunesse sénégalaise, plus particulièrement à la jeunesse thiessoise, de se faire vacciner et te le cinéma que ces jeunes avaient fait sur ces vaccins ba dominer population bi ku ne naan du baaxul baaxul tey jeunesse baa ngi vacciné wu. kon nag bu ligne de conduite amee ñu wër cee taxaw muy njariñu askan nañ ci àndandoo. nañ ci àndandoo ñu dem arrêter le nawetaan nag c'est tuer les hommes arrêter le nawetaan c'est de faire éliminer les vaccins su boobaa population bi jàpp naa ni duñ ko jël ndax ndaw ñi la. kon lépp lu ñu ci mën ñu ngi koy def sama quartier quartier keneen xale yaa ngi vacciné wu suba ak ngoon dirigeant yaa ngi fa taxaw kon nan accompagner le mouvement nawetaan ñu mën a jouer ci jàmm en trois mois lay durer c'est une action c'est une activité de coloration boo xamante ni c'est une activité de jeunesse te njariñ la. y a des jeunes yoo xam ne tey ci nawetaan lañ jëndalee seen yaay xaru tabaski accord biñ ci am ainsi de suite di ci faj seen i soxla mënuñu ko am ci championnat national les clubs sont là restent quatre mois ou cinq mois sans payer les joueurs kon nan xam ni nawetaan affaire bu gàtt la te njariñ la ngi ci njariñ économique njariñ relationnel njariñ bu ne jeunesse bi arrêté épanouissement bi ñu mën a concentrer à l' essentiel topp suñu njiitu goox yi suñu njiitu réew yi ci seen i bëgg-bëgg ñu mën a àndandoo pour développer Sénégal développer Thiès tout en changeant nos maire d' yi fi nekk maa ngi leen sant di leen gërëm merci beaucoup.